artisanat bu Sénégal li ci président Macky Sall jéem ak li mu ci def vraiment amagu ci morom mais abu abu aboutiragul bi mooy xam naa ne mi ngi def ay pas yu baax mu ngi koy jéem mais xëy na dafa jaaragul ci yoon yi wala yoon yu muy jaar du yoon bi mu bëgg moom parce que jeudi passé Sénégal yëpp xam na ne moom woote na woo jeunesse su Sénégal euh, Diamniadio centre Eh, Abdou Diouf eh, orateur yañ fa teg ba ba pare mom président de la République dafa joxe bi ne man na ñuy wax te defe naa ku gëstu aw ay waxtanam ay tontum yépp ci ñi wax ci public bi la soxla lool moy lim bëggoon dégg lam bëggoon dégg dégg ko fa parce que dañu makki ña fa doon wax président de la république ñu xamal la ni yaangi def ay pas yu am solo ci biir secteur artisanat bu Sénégal yaang koy jëm yaangi jëm ci création d'emploi création d'emploi emploi du Sénégal pour mu réussir ko faaw mu jégué secteur artisanat jege les leaders ñu bolé ñu fa wara waxé a wara défé ñu wara dindi affaire bi nekkul da ngay jànge expert la rek ñew té ko lool c'est des théories pour pratique bi mo réussir ko bañu ñu juddoogul ñun xalé yi ba nga ni loolu lañ fi fekk pour ñu réussir ko nañu intégrer ci biir fi ay boroomi xam-xama fi nekk ay maître d'apprenti ñoo fi nekk ay chef d'entreprise ñoo fi nekk ñu tàmbali consommer li ñu mom bu ñu bëggee développer secteur artisanat moy secteur bi nga xam ne li muy demandé ci emploi moy ki ko mëna jox puisque fi ku fi sa bay amul ay moyens yu baax sam njàng du dem fenn te boo bàyyee dangay mujj ambulance ji ay mbuus mbaa nga dem jàngi ji métier te entreprise yooyu ñu ngi fi ñu leen di dooleel xoolal village artisanal bi ma nekk muy su béjjul loolu dafa leer moom mooy suñu patrimoine mais yaa rien ku fi dugg sax da ngay da sax yow sa bopp da ngay yërëm ñu fi nekk liggéey am na fi mais njarte amu fi jaay amu fi dara baaxul Covid bi ba bi ñëw ba artisan yi ñoo ci impacté keneen ku dul artisanat ku ñu ci impacté dañu lay nax artisan yi kase ñoo yore réew mi ñoo yore économie du pays ñoom ñoo fiy liggéey kenn liggéeyu ci et fonds Covid nous avons fait fi 35 milliards nous avons recensé 186 000 personnes Nous, avons le ministre Boubès, M. monsieur docteur Pape Amadou Ndiaye nous avons 166 000 166 000 personnes nous euh, inscrire mooy li nous war 25 euh, milliards Nous xam fait des années de nekku fa mooy ni de waxee nit Nous 35 milliards nous avons koy jox mi ñu wëlbati ko nu ñu waat loolu nekku fi 25 milliards yi sax far amu fi lii si waxuñu ñu benn fu mu dugg ba léegi dafa war a leer parce que ñun ñoom ñoo ñu ko dig promesse moom bor la ñun ñoo ko moom ñoom ñoo ñu ko dig lii si nañu wax fu mu nekk benn 25 milliards yi fi nekk ñu wax ñu fu mu ne ñu génne ko wàcc ko ci askan wi président la république ku leen ne loolu wàcc na ci askan wi mi ngi lay nax askan wi bind nañu ñun ñëpp ay membre ñun ñoo yoroon liggéey boo xam ne président OPA yoo xam dañuy war a fay kenn lijjantiwuñu si bind ndaw ñëpp ñu am ci yaakaar yëf yi metti trop mu metti trop un an ñu ko ci sunu kër yi ñi ñi sonn trop ñi jaxlé trop li wacc ci dëkk bi war na la ko ci bopam yow lañu méré mere li la méré nak sa entourage la ñu bëgg nga xolaat sa entourage bu baax. 25 mille 50 milliards yoy ñu né génn nañu ko benn yoon lañu def ay ñamu bët ci nit ñi loolu xale wax ñamu bët sann ci tuuti rek ñi né ni am na mu yeb fa région yi Sénégal yëpp eggu fa xaalis bu wàcc fa. Dakar gi rek li fi wacc 30 mille personnes la ñu xool dañuy diviser 50 milliards 50 milliards 5 milliards pardon je suppose 5 milliards yi lañu ñëwoon dañ koy diviser pour 30 mille personnes li wàcce gun boo ko recensé ci réew moom président bu won ñu koy séddale wàccelee ko ne leen génne leen xaalis boobu recensé muy fi 1000 personnes wala 2000 personnes yu am ci réew mi ak léegi ça fait 3 mois far dara wàcce tout pour muy leer mu indi indiwaat aussi deer deer jaaroon na fi fajul dara dellu siwaat ni nii du fajaat dara façon bi ñu koy baxul lan nga naan damay bëgg dimbali ndaw ñi dama bëgg créer emploi ci réew mi jël deer jox ko alal ju bari jël ay xalé yu tuuti yoo xam ni ay 15 ans 18 ans 19 ans nga ne moins de 40 ans la jox xaliss bobu xana lool moy wuti waat leen ay passigal yow mom nga leen di joxat te ci kanam tuuti man ndogga ci am maa la wax lii da nga ko gisi léegi paas yi gaa ngay créé waat fi mu toll yu réerée sax ndax amuñu ko ndax galère bi dañoo ñëwoon ci covid bi fi ñu toll ma yaat galère paas man dama foog ne bu fekkee da nga bëgg a développé secteur artisanat ak développé jeunesse su Sénégal da ngay xool les ñi nga xam ne dañu yor ay makkaan yor ay atelier yor ay centre suñu jigéen ñi nekk jàmbar yor ay transformatrice et sonn aussi Eh, nga jël leen dooleel ñooñu seen centre yooyu mag ñu récupérer ay ndaw ci tali bi ak ci mbedd yi ak ñi seenum njàng yàqu dugal leen ci biir jël bijoutiers yi cordonniers yi mécaniciens yi menuisiers yi tout defal leen lu mel noonu jël chef d'atelier yi financé leen xaalis boobu ñoom ñu xëcc ay ndaw dugal leen ci biir place yi mais xale boo xam ne ni ba mu juddoo ba léegi moom papaam bi ko jur mosu téye 500000 francs nga xëy jox ko 500000 francs ab ab bindal projet mu toog xalaat yi taf taf taf affaire yu naxaate yooyu bind xëy dina ko kaa jël 500000 mu jël 500000 yi xamul luy valeur 500000 gis nga 500000 bu ko gisee parce que daf ko xam ba pare ñamal nga ko ko puisque daf koy wuti feneen ma bëgg ngeen xam ne foofu juum ngeen ci ñun Sénégal baaxuñ di jox gone xaalis di ko ko may sax waxuma la di jox waxuma bu ñu de mais dama ne nañu yokkaat âge bi bu ñu ne deer dañu koy mën ci 40 ans bu dee politique laxasu ci liggéey ci laxasu deer bi ko am juróom fukki at asafula juróom fukki at ak juróom 65 ans ko ko am dafay am ci deer bi ñooñu ñooy mag ñi parce que benn ci man man awma 65 ans awma 50 ans mais maa ngi jabar ak doom samp sama kër man dinañ ma jox ak financement ak projet ma koy bàyyi nii at yi ma toll naa damay dem Europe di jaay ay mbuus ak ambulance ji du ma ko def damay toog liggéey ci fii dolliwaat sama élargir suma entreprise dugal ci ay ndaw waxuma laa ñi nga xam ne ñoo ma féete mag jot ay ñaar jabar ñetti ñeent di nga leen financé 10 millions ki 5 millions 2 millions ñuy daw di génn dëkk bi duñu ko def loolu mooy réussir sa mission

joxoo ko budget joxoo dara de bu mi dawale sax donc na ministère dina fonctionner le président koy ñaan dindi nu mu nous pour ñu mëna réforme réforme yi liñ ci dimbali nañu conseil des ministres passe sax président ministre bi na taxaw ci réforme yi nu mu avant le 15 mai mais avant le 15 mai réforme yooyu mëna a taxaw ndax koy jox mu ay réforme dang koy jox lu mu réformé wo joxoko budget joxoko dara amul auto amul dara ken fayekul. donc lolu moy euh, lo xamni wax deug yalla defal nga ko waaye nag ba leg suñu xol sédagul li liñ ci ñaan rek moy réforme chambre de métier liñ ci bëggoon vraiment te teŋ ko ci këyit ñuy ñaan rek président nu mu gën gaaw mu appliquer ko moy doole chambre de métier d'abord chambre de métier nañ doole doole go xamni bi nga tégué réforme bi ba légui yakamti nañ réforme yoy mu gaaw té likoy aussi ci yow la djublu benen bi aussi di ñaan rek di ñaan damay laal tout ministre du tourisme parce que tamit ministre du tourisme dañ ko méré trop artisan yi dañ ko méré trop artisan touristique du moins ndax du nga jox budget bu toll ni ay milliards nga dugg ko ci banque bi ñu ne la hôtel yi ci lañ bok artisan touristique yi ci lañ bok guide yi ci lañ bok nga xol site touristique yépp tepp lu melni village artisanal Soumbédioune village bu melni point des Almadies kermel kon lolu ah joxo ben artisan touristique ndax lepp la jox tamit dang la jox borom ak borom yep mbour jot nañ 500000 village bu artisanal bu bu Thiès jot nañ 500000 naka ngay jëlé def prise parti par rapport aux politiques jël lo xamni yow Thiès nga dëkk xol favoriser wa Thiès yep jël tourisme jox len bàyyi wa dakar lolu ci metti la président il faut parce que bañ la joxee xaalis ne la xoolal artisanat touristique yi waa village artisanal bindu ñeneen ñi bindu waa Kermel ak ñëpp bindu faale woo ci kenn waa Gorée nga mosal tuuti. donc nañu bàyyi politique bi président wax dëgg yàlla génne na ay milliards def na ay milliards mais ñi mu àndal ñoo ko jàppalewul gis nga les ministres là jàppale wuñ la bu la nee dañ lay jàppale dañ lay nax li nga def nag ci conseil bi passé dee ko def di dugg ci artisans yi dugg ci dëkk bi bàyyi des conseils des ministres. conseil des ministres nag da nga ne fast track fast track da ko war a dindi bu ñu duggee ci pale bi nga ne na leen bindal ñoom ñëpp na bar boo leen ko bindalul du ñu xam parce que tamit lenn am na réew mi wax dëgg yàlla yàlla def na ni ay milliards des milliards dugg nañ fi mais xaalis bi kenn xamul fu mu jaar ñun artisans yi da gisuñu ko yaakaar naa ñun artisans yi xam ne noo toog kenn gisu ko ci ndax euh, wax dëgg yàlla DER bi ma gis nii naa ci duggaat tuuti ci affaire DER bi

gis ni tamit euh, pêcheurs yi level nga leen âge bi parce que pêcheurs yi léegi amatul moins de 40 ans pêcheurs yi léegi jox nañ ba plus que 40 ans 50 ans 60 ans di la ñaan nag ñun artisans yi nga level ñu parce que artisans yi bari na ci ñoo âge de 40 ans ci la ñuy pare jàng métier donc ku pare jàng métier ba teg sa daara jëm 50 ans kooku war nga ko mën a jàppale di la ñaan président level ñu moins de 40 ans bi ñun artisans yëpp ñoo ci ànd pour nga level ñu